Ibrahima Ndong wala ak Mamadou Gaskel Diamé naa nu mu ko sànni léegi Ablaye moo leen féete càmmoñ Mamadou Gaskel Diamé moo ki nekk dimanche. 20 juin 2021 journée Manga Production moo ñu fi woo tegal xale finalu poids lourd baa ngi noonu Ablaye am na mu tari tufli raay ci kanam gi raay ci loxo yi Gaskel Diame kenn du leen ko présenté ndaanaan la ci làmb compétition bu ne jël na ko moom Mamadou Gaskel Diame. waaye Ablaye mii ndaanaan la ndax depuis compétition bi commencé ba tey mu ngi def ay preuve moo éliminé Boy Faye ci demi final bi am Gaskel Jammeh kon lamba ñu nii ndeysaan ñu ngi noonu Gaskel Jammeh ndeysaan Ablaye daw na jëli ko gaskel karu ko ndeysaan du yomb ñoom ñaar Ablaye jëli na ko gaskel tëru ko ndeysaan ñaari xale yaa ngi noonu ñu ngay lewaatee du xoolante ci bët final kenn du ko caaxaane ku ci nekk day jox moromam cër gi mu compétition bi laaj arbitre bi àtte na Gaskel am benn avertissement su amee ñaar day perte compétition bi Ablaye amagul benn avertissement kon ñoom ñaar ñu ngi ci compétition bi ba tey may nuyu waa France di nuyu waa Italie di nuyu waa Espagne su ma nee Espagne nag. damay taxaw nuyu sama xarit ba Babacar borom Espagne ndaysaan di nuyu maam Cheikh di nuyu soxnaam ndaysaan arbitre bi àtte na avertissement Ablaye avertissement deux ndaysaan luy xeeñ narta neex la Gaskel Jamme ak laay ak Ablaay mi comme nara mujj du neex ndax Gaskel am na deux avertissement su doon maay laay dama koy génnee ba ba jege saako yi taxaw bu Gaskel ñëwee rek ma buux ko mu génn saako yi perte compétition am loo gis stratégie la su ko defee laay jël compétition bi boo amoon staff baax gis nga jëli na ko balay jàpp laay dina daan wala déet gas nga jàpp bee ko sol na ko sol na gaskel laay sol laay sol na Gaskel Diané tegal na ko chaise mbot na ko laay dina ko daan wala déet Gaskel bañ na laay mbot na ko daan na ko laay daan na Gaskel Diané na Ablaye daan na Gaskel Diané Adama kaay mu mel ni tey dañu gis beneen laay bu ñu xamuloon lan la. sant yàlla rek affaire moom compétition la rek kese du leneen quoi. nga daan booy fay. teg ci gaskeel jàmme. bi ngay bëreeg moom yaakaaroon nañ ni doo bu la yeggee fu sori dina la daan ni nga bëreeg moom ba daan. non man amul ku ma mënul daan. lamba door waa rek yàgg naa ñëw di per te man la ko yàlla jagleel sant yàlla bu baax. dugg nga ci arène. non mosuma am combat ren. looy xaar. gars yi nag ñoo may daw na jël avance bokk. ñan ñooy sa morom ci lamb. waaw ah, xam nga foofu posé naa la question bi. noonu la demee nag.